إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بي بالوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بي بالوجه المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarlook ñoom duñu seetaan noo ngi am mbégte te di yëkkati kàddu yoo xam ne ñoo ngi ciy sent ngërëmul yàlla ak ngërëmul yonent bi ak ngërëmul Serigne Touba te muy kàddu yu mbégte muy bis bi nga xam ne Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ci yëg yëgu boppam ak dundam sëriñ Touba ci la ko xalaate ba wax ne dafa bëgg ñu gàttandu weeru muharram ci benn fan wala ñaari fan dëppoo ak àllarba di fukki fan ak benn ci weeru ut xasiday Seexuna Ahmadul Xadim yi nga xam ne bu àdduna mësaa lëj ku da ngay dem defe istighfar mu jéggulu sa borom wala ngay sant yàlla wala nga di ko tudd wala nga di ko ñaan te yooyu yëpp nag sëñ Tuubaa dajalee ñu ko ci biir xasida yi moo tax Cheikh Mouhamadul Muntaxa wax ne àllarba fukki fan ak benn ci weeru ut yemoo ak benn fan wala ñaareelu fan ci weeru muharram woo na ñëpp Tuubaa bu ñëpp xaju Tuubaa fu pencum Serigne tubaa mën a ne nañ fa daje jàng fa xasiday Serigne Touba Xaadimu Rasuul yendoo ko xëyee ko suba nag ba juróomi waxtu ci ngoon loolu moo taxoon mu wow woo Serigne Amsatu Mbàkke moom Serigne Souhaïbou mi nga xam ne dundam gépp jeexal na ko ci xasiday Seexuna Ahmadul Xadim yi tàggat ci ay ndaw tàggat ci ay kuréel na ko bis boobu yow laa ci jiital waaye mu ànd ko nag ki yore kàddoom di rakkam di Cheikh Mahamadul Bachir mi nga xam ne mooy porte parole yoonu murit waaye mu ànd ko nag waa daaray Hizbut Tarqiyyah te bu ma tuddee daaray Hizbut Tarqiyyah tudd naa mbooleem fu daaray Cheikhuna Ahmadul Xadim nga xam ne léppam da koo jëme woon ci tagg Moustapha sallallahu alayhi wa xaaj bi dama ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bii may julli ci moom bis boobu nag woote mu war a nekk àllarba le 11 août kon nag ñu ngi ciy séntu ñëpp nag Touba daal li ko tàmbalee ci jumaa ji li ko wër lépp ba ba ngay àgg Daaru Minam fu fi ab tànt xaj nañ ko fa def waaye mbooloo mi fu waayu jot na fa toog kuy ñëw nag na nga bàyyi walla xel ne sëriñ bi bi mu wootee dafa yëkkati alali boppam def ko ci kon ku mën a joxe basang ku mën a joxe potondaa ku mën a joxe ab kaas ku mën a joxe aw nag ku mën a joxe am xar ku mën a joxe ginaar bu ci kenn xeeb dara àndal ak loolee ñëw wuy si Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu noppee bàyyee suñ bopp nag sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mi nga xam ne juboo woon naag boromam te lépp lépp lu ma mas di borom fekk na mu teg ko ci ba noppi su ko defee mën a wàcce jàmm wàcce xiiwal wàcce naataange tasaare ci àdduna bépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ilal kitaabi wal hadiisi sarafaa qalbi wa qalbi bil wajhi al Mustafaa ilal kitaabi